ji am na benn virus bu ñu tuddee coronavirus bu nekk Chine am na yenn ci sénégalais yu toll fukk ak ñaar di douze personnes ñu fa nekk euh, tey jii ñaan nañ état sénégalais ñu jël ñu jëli leen mais boobu ba léegi état bi euh, day tardé ci day tardé ci répondre leen naka la ñuy def ba ñu ñëw yow loolu en tant que sénégalais ban jàngat nga ci am. Euh, man li ma mën a wax mooy que ni état sénégalais dafa war à chaque fois qu'il y dafa war a teew à l'immédiat mooy que ni buñ su ko soxlaa teg mu ñëw mu wall leen. parce que loolu tax ñu nekk fi bi foo ñu doon président dañuy ne man bi mu fi nekkee je serai là pour vous donc de ce fait loolu bu am demee ba am rek ak coronavirus bu ñu bàyyi ba gars yi euh, ñu bàyyi ba à un ñu dem jëli leen loolu day fekk ñenn ñu infecté leen pare ñu am bu ñu ko andee Sénégal loolu day doon problème si ñun te balaa loolu Sénégal dañu war a def du tout ñi fa nekk bu bëgg nañ ñëw ñu jëli leen andi leen loolu bon d'une part mën nañ ne dañoo ñàkk moyen mais si vraiment dañu xam ne suñ foofu noonu seen i doom ñoo fa nekk seen noo a fa nekk loolu loolu war nañ leen jëli mais tamit ragal virus bi ñëw Sénégal fii wàlluñu loolu tamit xam naa mën na doon seen ragal. mën yeneen yeneen di jëli seen ay doom yi nekk foofu. waaw ñoom noonu xam nga compréhension la laaj yow mën ngaa jëli ñeneen mais Sénégal la plupart dafa complexe te tamit day dafa ragal. bien sûr l' état c' de venir en aide maanaam maanaam état bi à chaque fois dañoo war a jàppale quelles que soient les circonstances ñun tey waroon dee sax état bi dañoo a jàppale. jàppale euh, euh, euh, comment jàppale bu ñu xam ne état bi ñëw nañu jàppale malgré malgré tout voilà et malgré la volonté divine waaw même bu fekkee même bu fekkee comment dirais-je du Sénégalais yi bu ñëwoon tey dañuy contaminer voilà comment dañuy contaminer Sénégalais yi mais état bi moom li ko war li ko war mooy ni que moom daf ñoo moom dafa war a jàppale comment dirais-je moom dafa war a jàppale citoyens yi ba mu mat set. tey bu naroon andi fii virus bi sax ñoom war ñoo ragal c'est-à-dire fii tamit ñun voilà ñun am nañu ay docteurs yoo xamante ni voilà dañoo xarañ ñoom ñoom bu lañu andiwee voilà ñoom ñoom dañu seetal ñoom dañu seetal mesure mun nañ ko voilà mu nañ ko euh, comment dirais-je faj voilà parce que parce que gis nañu fii kaw Ebola bi Ebola bi voilà Guinée amoon na Ebola mais voilà suñu docteur yi faj nañ ko waaw mais euh, kon dans ce cas état bi warul ragal bon en tout cas je pense que ragalul war na en tout cas waroon nag voilà lii l'immédiateté mu dem jëli sénégalais yooyu andi leen voilà jëm comment euh, jëm ko boole ak suñu euh, voilà jëm ko yóbbu hôpital gars yi xool li ñu ci mën a def bon lenn xam nañ ko yàlla mooy dogal ñooñ bu ñu naree dee dañuy dee mais bon moom na fexe andi leen euh, voilà comme tous les autres états comme tous les autres états voilà parce que voilà c'est voilà parce que voilà parce que c'est cette disons que responsabilité qui voilà ah franchement du sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk euh, en Chine war ñu def euh, lépp lu ñu mën pour indi leen parce que moyen milliers je peux pas concevoir ay milliards di dem di ñëw waa Maroc ñu ngi jëli ci seen doom fépp fu fu fu fu euh, fu doomu beneen réew nekk ñu ngi xool nu ñu ko demee jëli ji donc ñun tam dañoo war a dem jëli ji suñuy doomu réew indi leen fii si Sénégal aussi pour. dañ war a jàppale daal c'est ça man je trouve que loolu du alibi man je trouve que loolu du raison franchement dañu war a dem jëli ji leen indi leen franchement ñu def déployer tous les moyens qu'il faut parce que aussi dañoo war a nekk patriote aussi dañu war a dañu war a dimbalante tout ça je veux que ñu ne yow tu es sénégalais bon temps nga ne da ngay bàyyi sa moroom sénégalais muy sonn donc lool ça ne se pas franchement dañu war a déployer tous les mois qu'il faut nag j'ai les moyens qu'il faut ñu dem jëli leen indi leen parce que loolu moo mooy li war maa ngi sàkku ci ñoom franchement parler autorité yi ñi nga xam ne am nañu pouvoir pour def ko ñu euh, lutter contre sa franchement dimbali leen parce que bariwuñu xam nga bariwuñu fu fekkoon ñu bari sax ñu ne waa comme amuñu les moyens qu'il faut mais bariwuñu mën nañ leen dem jëli ji leen indi leen tout ça moo gën tu vois c'est ça. la république def def na tout pour ñoom ñu ñëw. maintenant ñoom milieu bu ñu nekk ñoom c'est-à-dire que lu mes président la république lu mu expliqué c'est très clair yaay yi lu mu wax nee na ñun amuñu moyen logistique ak moyen yoo xamante ne ñun pour ñoom ni del jëli leen parce que tout le monde ñëpp xam nañ ne virus bi léegi dafa dafa mu ngi law te Sénégal amul yenn capacité yi mais yeneen sénégal yi nekkoon yeneen ville ci biir Chine ñoom rapporté lañ leen peut-être maintenant c'est lié à des discours yoo xamante ne yenn politiciens yi ñoo koy jëm stratégie pour pour yàq le président def mais ñëpp xam nañ moom am na ñu étudiants yu fa nekkoon nekk Chine yoo xam ne président de la République moo leen jëli foofu indi leen Sénégal.